Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi baaxoo di ànd ak Tawfekh Production ñu ngi fii ci masjid Masalikul Jinaan ah mu dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2019 di ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett. di bis bu rëy rëy rëy bis boo xam ne yaakaar naa àdduna bi yëpp tey dundu nañ ko ci mbégte bis bi nag li ci feeñ ci ay kéemaan ak ay xar baax dafa am ay bushraayaat ay yeneen mbégte dañ doon ibbi jumaa rek waaye it yi ci feeñaale dafa bari ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér cëslaay la ci réew mi xéewal la ci réew mi ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax ci adduna bi laay wax wala sax ci albashariya ku ne gis na ne ñaari président yi muy Abdoulaye Wade ak euh, euh, Macky Sall président de la République du Sénégal gis ngeen taxawaay bu rafet bi nga xam ne xalifa général de Mourides taxaw na ko tey seen diggante daanaka mën naa ne waxtaan wi boo ko xoolee ci ñoom rek la ko jëmale ndax dafa tënk dafa wax ne dafa wax ne yéen ñaari ñi yéenay yéenay cosaanul jàmm ci réew mi kon boo leen amee jàmm rek mel na ne réew mi ñëpp am nañ jàmm te loolu nag di lu neex a mbiram noonu rek la mën a mel ndax dafa woote ngir jàmm kon nag euh, problème bu mel nii wala xeeti gàllankoor yi nga xam ne luy gàllankoor la ci dem luy gàllankoor lenn ci doxinu démocratie réew mi bu ko yoonu murit euh, saafara ci loxol xalifa bi euh, ci teewaayam ak ci doom ak ci léppam loolu day gën a dëggal rek ne Serigne Touba Khadimou Rasoul ah mooy ki nga xam ne mën nañoo dimbali fii dimbali ñu fa ñu jëm di sant nag mbokki taalibe yi ñëpp yaakaar naa ñëpp jullit ñi. mbooleem saxsiyaat yi euh, arab yeeg ñëpp ñëw nañ kenn desul ñi sëriñ bi bokkal diina ji it mooy turux suufiya yi it yaakaar naa ñëpp gis nañ ko mel ne Pape Malick nga xam ne moo teewaloon waa Tiwaawoon gis nga ko it moom it taxawaay yi mi taxaw waaye di ñaanal it El Hadj Mbacke yu fay suñ borom gën koo dëgëral waaw taxawaayam ci yoonu murit taxawaayam mooy taxawaayam ci lislaam rek di nuyu ñëpp waa Tawfekh Production nag di sant mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi doon ànd ak ñoom di di ñu yónnee seen i message di ñu encouragé ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñuy ñaan bis bi nekk bis boo xam ne bisub xéewal la wala li ciy juddoo sax ci xéewal lay wax mu daj fépp ci àddina bi mbooleem fa ab julli nekk ak foo xam ne sax ka fa nekk du ab julli ndax Sëñ Tuubaa moom dafa ñëw rek ngir dimbale nit ñi waaw bañ na ko ba yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadin irham jamial wara sëñ Saaliwu Mbàkke radiyallahu taala anhu daana ko ñaanee jubli ci di di gën leeral ak di feeñal message bi Sëñ Tuubaa bu yéeme boobu muy irham jamial